Ndiaye waa ku tuddati sama tur wi ah. Ndiaye mu waay. waaw man xanaa damaa nekk en promoteur yëguma ko lan la luy sa problème lan la. waaye ndaw Samba koppar ah ah. eh, eh ma sa paxe bakkan yooyu ma may la xaalis pour lan. dama laa nopp. Eh, waaye ndaw Samba nopp ah ah nopp sax waaru na de nopp man. Ndiaye sa ta ta ta ta wàjjaw waaye yow mi man nga sama tur wi kat ku la jàngal li yow ah wuyooti naa la ah léegi dis-moi qu'est-ce que tu veux lan nga bëgg. waaw ah, man Nafi Mbaye jëlaat la ma dugalati nii nag ba bàyyi man yaakaaroon naa ne bana ndeket moo indeeti lii fer ma ñemme xaalis nga bëgg dama ci Nafi Mbaye ma jox la xaalis ah. dama la nopp. Eh, li waykat ba naan mbëggeel ca xol la may gaañ waaye gi mbëggeel la gaañu ma ca xol. laa ilaha illallah sama fit wi la yóbbu rat nopp ma ne nopp sax jommi na tey de lii ah waaw ko defar mbëggeel kan la yow. ma na ma nag boole maak téléphone baak sunu waa kër ñun ñëpp nag ah yow booy wax envoyé ma doo wax bi tuuti nii ah, ah. ma boole maag téléphone beeg yëpp na ma dañuy xawoon dinaa la envoyé ma lu ma lay sax yow. xaalis. waaw man téeméer jéem a soobu ji ki jël ko benn yoon rek ah? yéen ñi gisu leen loolu ah ma sóobu ci moom gisu leen loolu wala ma jëm cee sóobu gisu leen loolu. ok fecc sa kanam bi correctement nga may ma sourire bu ndaw sourire petit sourire mag def casting xool ba xam dinaa la mën a engagé am déet. xaw la ñab tuuti tuuti. oh ñab bi ëpp na. xaw la kebale sa ñaari tuñ yi tuuti mel na kuy catal catu ceen rek ci kubéeru cubéeru mbana niñ koy catale nga xaw ko kebal tuuti noonu génne sa làmmiñ waree la sa gémmiñ gi sarme ma doot dama ko bañ defal loolu ma xool waa baax na defal ni xolo màttul màttul ma xool te bul wengal benn tuñ nag ne yëpp daje ci digg bi matul ay man de xaw ma na fi may ci lu ma dugalate ni ma jaata kaa génne ma ci jafe-jafe léegi bu ma la mayee xaalis ak defal la li nga bëgg yëpp léegi ma ma ni ko takk eh waaye ndaw sàmba kon képp ku leer vidéo bi rek takkal sa morom Fatick fan ngay day ngay yow mi def vidéo bi vidéo soxna si xam naa yaa sax yaa ko wax mu wax ci man ak yooyu waaye tubaarkàlla baax na mais gis naa nga def si moom beneen vidéo di ko waxloo ay mots yu xaw a débordé yoo xam ne wax yu xaw a ñaaw la genre mel nii boo leen dee vidéo de leen vidéo ñuy soulager ngeen leen waxloo loo xam ne dafay positif mais bu leen di incarner wala ngeen leen di proposer wax ay wax yu negatif parce que demewuñu ak seen xel demewuñu ak seen sago dañuy kaf di foo di ambiance mais bu leen leen waxloo yenn wax yoo xamante ne bi day débordé wala day xaw a ñaaw wala ku ko dégg ne acam affaire bi mën naa neex cool te amul dépassé amul wax lu ñaaw surtout ñi nga xam ne daanaka sun ay moroom yaay bàyyi lañ maa ngi bu baax yow mi dugal vidéo bi ni tagge ma pour ma gis ko aw ma sa numéro aw ma sa benn kii bu ma mën a wax ak yow fii laal ko mën a wax nga bàyyi ko xel